gan gi doyen Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinal bi. Mhm. ñëw euh, ñu tàmbali waxtaan wi ak euh, njiital euh, ex parti Pastef Ousmane Sonko ay bés bi ñu génn ci njaxtale dal nay jël dogalu dakkal grève de la faim bi mu nekkee woon xiifalu fanweeri fan ak lu teg ñu bari ŋàññoon boobale xeex waaye moom la gisoon ni ci la mën a sukkandiku ngir jàkkaarloog ñi koy teg lu dul yoon. alors buñ doon natt xeex booba lan la ci euh, Ousmane ko jëlee ak lu ci ñàkk. waaye jële na ci moom euh, expérience bu rëy ndaxte mosul euh, dem prison mosul dem grève de la faim et grève boo xiifee nag nga bañ a lekk weer du teg loolu épreuve bu rëy la bu ci nit ki expérience bu rëy dina dina ko dina ko am ci prison bi ak grève de la faim bi. beneen expérience bi aussi xam naa ne dina ko yee. dina ko yee prison moom euh, dina la yee ci lu lu lu bari euh, surtout pour un homme politique comme Ousmane comme euh, Ousmane Sonko. bon xam naa ne aussi gis na que am na ñu bari ñu bari ñuy doon wax pour mu bàyyi grève de la faim mm-hmm. loolu mujj na ko déglu loolu aussi lu baax la que que booy xeex même bu dee da yaakaar nga am nga dëgg li ñi di la wax li ngay def ni baaxul mën nga ci mën na la jural leneen mhm. bon loolu aussi am na xel pour déglu pour déglu waa parti am société civile bi ak xalif bi aussi mhm. dox na ci tànk euh, jàmm loolu aussi expérience la defe na pour un homme politique maintenant euh, mën nañu wax ne aussi lu nekk ci kanamam bon lu rëy la mhm. ndaxte xamuñu naka lay fexe ba génn ci prison bi est-ce que dina bokk aussi bu génne loolu yëpp mu ngi mu suñu kanam. Hmm. amul lu mu ci ñàkk ci ci xeex bi parce que ñu bari jàpp nañu ne du ndam euh, doon na nekk ndam bu ko ñenn ñi jàppale woon ñu mel ni waa gauche yi nga xam dañoo ko wër te xam lool euh, façon xeex boobu di grève de la faim waa Partem itam ñu bari gis ne dañoo xëy na ñàkk solidarité ci euh, yoon boobu Ousmane Sonko jëloon. moom ci Ousmane Sonko moom ndam la Mm. ndaxte responsabilité bu rëy la nekk euh, ci prison de euh, nga euh, loolu jaarul yoon nga def grève de la faim weer bu teg loolu responsabilité bu rëy def te mm. am na ci ndam ndaxte ñëpp ñu ngi doon coow pour mu arrêté mm-hmm. muy nitu diine yi muy civil bi muy Pastef donc euh, boo gisee weer bi bi ñu génn nii euh, amul leneen lu doon actualité bu dul grève de la faim Ousmane Sonko ak ñeneen donc loolu victoire politique la. sur le plan moo tax fàttewuñu ko. voilà fàttewuñ ko. parce que am na yeneen leader yu ñu fi tëjoon waaye daanaka balay muy am ñaari ay bés kenn waxatul seeni wax. voilà boo gisee intellectuel yi jóg yëkkati seen baat société civile bi même bitim réew manifestation yi fa am hmm. donc am na quand euh, euh, solidarité bi moom am na am na ñu ko soutenir léegi nag xëy na am na lu ci des euh, ndaxte Yewwi waroon na gën a taxaw hmm. ci épreuve boobu ah, man ci lu ma gis Yewwi taxawul bu baax a baax comme Ousmane Sonko ni mu doon taxawee Yewwi hmm. donc loolu aussi euh, expérience bi mu war a jël pour xam ne que xeex bon dangay xeex wante da ngay xam ne que xeex bi bon man euh, am na ay rythme yu bëri hmm. ah, euh, solidarité bi bu amul loolu soo moytul da ngay xeex yow kenn alors que xeex bi du pour yow kenn hmm. da ngay pour sa askan pour sa coalition donc da nga war solidarité bu war a am ak sa sa coalition ak sa ak sa parti loolu moom defe naa des na quand niñ ko jàppale bu mënoon na gën a dëgër lool. Mm-hmm. alors euh, booba jamono waa parti PASTEF euh, mel ni ñoo xam ni euh, déggoowuñu ci lu aju ci seen candidat wala seen candidature ndax am nañu fi yëkkati woon xalaatu plan B ñeneen ñi daal di koy dàq ne benn plan lañu am mooy Ousmane Sonko tey ban yoon la PASTEF wala ex PASTEF mun a jël ci élection yi ñu dëgmal ngir am ci ndam. ah man ci suma xalaat ñoom seen xeex mooy génne Ousmane Sonko fu mu nekk. loolu moom Pastef xeexam mooy loolu génne Ousmane Sonko ak yeneen détenu yi euh, loolu mooy seen priorité loolu loolu nag dafa laaj ñu waxtaan ñu am mobilisation comme ni ko waxee sànq muy Pastef muy Yewwi Askan muy F24 mu am solidarité bu amul pression ci nguur gi euh, du gaaw a génn fi mu nekk donc loolu mooy priorité euh, Pastef léegi nag ñu ngi ci politique xamuñu ndax est-ce que dina génn wala même bu génnee est-ce que dina bokk wala du bokk loolu dañ ko war a sóoraale euh, ñu waxtaan seen biir pour xool euh, Pastef bokk na ci parti politique ci opposition bi am na ay résultat yu baax ci élection locale élection euh, législative war na bokk léegi nag ban melokaan la war a mbubboo pour bokk ndaxte euh, Pastef euh, dañ ko dissoudre hmm. amatul existence légale hmm. nañu naka lañuy xalaatee pour xool ban parti moo leen war a téyel euh, ban candidat la ñuy jël ak naka la ñuy demee ci Yewwi ak F24 loolu dafa laaj ñu waxtaan ñu dal suñu amee xiiroo ak ŋaayoo seen biir loolu moom baaxul ci Pastef baaxul ci Ousmane Sonko. Hmm. mais plan B mënul ñàkk. ndax Ousmane Sonko bokkam leerul tey bu ñu déggee ministre de la justice mi ne euh, condamnation bi définitive na te Ousmane ko génnee nañu ko ci liste électorale yi loolu dafay néewal ay euh, chance pour bokk ci élection bi. waaw ministre bi moom professeur Ismaïla moom xalaatam la joxe mooy ministre de la justice ñu bëri ànduñu ak gis-gisam. Mm. bon loolu débat diggante euh, ministre bi ak avocat ak société civile bi moom muy suñu kanam. léegi nag participation Pastef moom yaakaaruma Pastef bañ a participer ndaxte doole bi ñu am ci élection locale ak législative ak influence bu ñu am tey jii muy Sénégal muy bitim réew parti boobu mënul ñàkk participer. Hmm. léegi nag laaj bi mooy naka la ñuy participer est-ce que dañuy jël beneen parti euh, bi nga xam ne légal na am na euh, mën na porter une candidature du Pastef loolu il faut ñu xalaat beneen Euh, xalaat bi aussi mooy kan moo naa nekk seen candidat kan la ñu tànn est-ce que ci biir Pastef la wala est ci biir Yewwi la wala est-ce que ci biir F24 loolu dafa laaj ñu weccante xalaat ñu xool euh, ban ban moo gën un candidat de l'opposition euh, moo gën ci ñoom fu ñu toll nii. suñu hmm. mënoon am loolu Pastef ak yenn parti Yewwi ak F24 ñu am seen candidat de l'opposition. benn candidat loolu voilà loolu moo gën ci Pastef mm-hmm. loolu moo gën ci Ousmane Sonko su fekkee ne bokkul. d'accord. alors ñu ñëw ci euh, Benno Bokk Yaakaar ñoom euh, amaguñu ba tey candidat wala fësalaguñ ko en ni mooy euh, gàddu seen coalition ci élection présidentielle bi ñu dëgmal samedi la ñu wax ne lañu koy fësal waaye am nañu jàpp ne président Macky Sall mu bàyyi woon ñëpp bokk ku génn ñëpp jàppale ko loolooy li gën ci Benno Bokk Yaakaar mooy itam néewal xëy na seen ay risques yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy am ci élection bi ñu dëgmal est-ce que xalaat boobu yow ànd nga ci no non lu gën ci Benno mooy ñoom ak APR ñoom ñëpp xam nañ ba fu ñu jaar ba gañ deux mille douze ba gagné deux mille dix neuf mooy seen booloo seen secret yëpp mu ngi ci booloo booloo boobu nag mooy nga am candidat benn candidat loolu mooy euh, moo xam ne comme moins dinañ am chance am dara ci euh, deux mille vingt quatre wante bu ñu tasaaroo ci biir APR tasaaroo ci biir Benno hmm. loolu moom euh, ci défaite la parce que gisuma tey jii seen biir benn candidat ki nga xam ne mën na am résultat Macky Sall daan daan euh, daan am en 2012 ak 2017. ba dem deuxième tour euh, donc seen candidature daal au moins lu bon bon ñu am ñaari candidat hmm. à la limite à la limite de deux candidats ñi nga xam ne mën nañ polariser seen électeur mais bu ñu amee ñett ñu tasaaroo loolu moom baaxul ci APR baaxul ci Benno hmm. alors euh, Benno boobule euh, seen candidat bi ñu wax a tànn euh, naka nga gisee euh, xëy na profilam naka la wax a mel yan critère la war a am yan conditions la war a remplir pour Benno am chance su génn au moins deuxième tour. xam nga lu mu wuutee ak euh, élection locale ak ak législative mooy mooy mandat bi. ki nga xam ne mot na njiit njiitu président de la république loolu mooy base élection présidentielle donc ñoom seen candidat yi war nañu xam seen biir ku gën a mot ku nekk am nga atu ku nekk am nga faiblesse mais am na ki nga xam ne kii att na mandat bi ndaxte mën na fédérer APR mën na fédérer Benno mën na mën na sax dem négocier ak yenn parti de l'opposition loolu loolu mooy candidature politique Euh, loolu nag euh, président euh, nangul débat nangul débat ci biir APR nangul débat ci biir Benno loolu moo indi blocage bi mais bu ñu defoon débat ñu ne ana candidat yi ñu waxtaan teg seen critère teg seen commission mais loolu su amee primaire lu bon bon dinañ am unité maintenant ku ku bañ unité bi nga dem mais bu ñu amoon de discussion ñu am benn candidat unitaire def naa loolu moo moo gën moo gën ci ñoom. est-ce que loolu xajoon na fi diggante bi président Macky Sall waxee ne du bokk ak léegi. ah loolu yëpp bu dee rek lu ñu observé ni Macky Sall moo indi coow li yëpp. Hmm. ndaxte bi mu ko fa falaatee deux mille dix neuf waroon na xam ne warul bokk ci deux mille vingt quatre mais dafa génne ci deux mille dix neuf commencé wuy non ba jusqu'au fin lépp da dabaat ko. Hmm. moom mënoon na jël décision ne du ma candidat léegi nag nañuy fexe ba am suñu candidat deux mille vingt quatre euh, euh, quand même deux mille dix neuf ba tey ji euh, APR ak Benno suñu toogoon waxtaan seen biir lii yëpp du leen fekk mais malheureusement président bi mooy mooy chef APR mooy chef Benno li mu wax lool noonu la tey ji APR amul sax second mm-hmm. nga xam ne parti au pouvoir nga def dix ans ci nguur amoo sax ki nga xam ne mën na remplacer euh, chef bi bennoo naka noonu donc ci gouvernance Macky Sall moo jur euh, jafe-jafe yu ñu am ni hmm. alors ci candidat yooyu nga wax diggante Mahammed Boun Abdallah Dionne Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda jàlloo ba ci Aly Ngouille Ndiaye kan nga gis ne critères yi nga jàpp ne moo war a nekk ci moom euh, mi ngi ci ñeent ñi kan nga gis ne moo ko remplier yooyu condition waaw boobu moom day jafe. day jafe day jafe mais ku nekk par exemple atu euh, potentiel bu ku nekk ci ñoom am na potentialité. Hmm. Ah, bu dee Boun Abdallah ñoom moom nekk na premier ministre gis-gisam ci plan Sénégal émergent euh, defe naa moo leen gën a ñor ci euh, plan Sénégal émergent hmm. expérience bu mu am. Amadou Ba amu ko Abdoulaye Daouda amu ko ki ñeneen ñi ah, ah, waxu na euh, donc sur le plan de rek euh, stratégie de développement euh, ak gestion de l'administration Boun Abdallah am na quand atu boobu bon boo jëlee Amadou Ba aussi atu am mooy que moom c'est ki nga xam ne xam na bu baax a baax économie xam na bu baax a baax administration Euh, am na expérience relation internationale loolu aussi c'est un avantage bon Abdoulaye Daouda naka noonu mais boo gisee euh, candidats yi ñu gën a fës mooy amadu Ba ak euh, ak Boun Abdallah hmm. ñoom ñoo ëpp expérience politique ñoom ñoo ëpp expérience administration donc choix bi di seen diggante ñaari ñooñu la waroon nekk hmm. mais boo ci yokkee abla Daouda yokk ci keneen keneen et keneen cinq doo am possibilité sax teg ay critères de choix def naa loolu moo leen euh, loolu manqué mais il faut ñoo am critère politique nga xam ne kii am na expérience état bi am na expérience administration am na expérience politique attan na mandat bi ndax du mandat président du mandat APR du mandat Benno déedéet mandat askan bi. Mm -hmm. ki nga xam ne dina am confiance askan loolu loolu mooy choix politique mais malheureusement ñu ngi ci euh, ay euh, personnalisation entre mm-hmm. ñoom euh, c'est la guerre ils perdent de vue que affaire bi du loolu du seen du seen personnalité non non c'est une responsabilité politique énorme mm-hmm. donc defe naa ñu defoon débat boobu xëy na ñu am chance am benn candidat bi nga xam ne consensuel mm-hmm. ñoo ñu wax ni candidat lañ ñu bari ci ñoom euh, am na ci ñuy wane ni daal ñoom même bu ñu leen tànnul duñu ñu bàyyi dañuy dem ñu mel ni kon ñuy défier président Macky Sall est-ce que bu ñu génnee ci tànneef gi ak coow lii dina am ba tey euh, autorité bi mu amoon ci biir parteem non mënutul am autorité bi mu amoon ama 2012 2019 ba tey ji Macky moo doon euh, décidé mais tey jii mu ne du candidat autorité am foofu la yem loolu aussi c'est la politique ñi nga xam ne dañu bugg euh, nekk candidat di préparer wu depuis des années ñooñu mënoo leen wax lii ngeen di def mm-hmm. il faut président aussi nangu que ñooñu am nañu ambition am nañu capacité pour pour euh, pour wax fu ñu jëm ñoom loolu defe na président il a comme il, il son autorité mm. même au niveau de la l'APR boo gisee tey jii autorité président bu amoon lii yëpp du fekk euh, APR bennoo naka noonu même situation sociale bi donc c'est la perte de l'initiative président amatul initiative historique hmm. il faut que mu nangu que nguuram jeex na maintenant qu'il aide euh, mu dimbali parti am ak coalition am naka la ñuy fexe ba amaat beneen souffle hmm. c'est ça qu'il faut aller chercher un second souffle de la majorité et de la paix mais loolu àndul ak autoritarisme euh, président président Macky Sall. Hmm. est-ce que xëy na bëgg am ci lu mu téye ba tey moo tax muy def remaniement gouvernemental bi ñu annoncé bu fekkee bien sûr dina am euh, lan lay wut ci boobu boobule coppite walla yooyu coppite. bon man honnêtement li ma ragal mooy calcul. gis nga le na calculer na calculer na ba lii lii jur lool. Hmm. Euh, amatul déggoo APR amul déggoo ci benn bon gouvernement bi aussi soo moytul calcul la nar a nekk. dina dem dans six mois moom dina placer ñi nga xam ne ñi wóolu nañu leen ci gouvernement bi. Hmm. bon loolu loolu calcul politicien yooyu baaxul ci stabilité gouvernement bi ak administration bi euh, loolu vraiment c'est un risque. que président jël euh, gouvernement mu mu tànn ki nga xam ne ñii wóolu nañu leen am na confiance pour su demee ñooñu continuer liggéey bi mm-hmm. loolu c'est c'est un risque quand même au niveau au niveau du gouvernement beneen risque bi aussi bon est-ce que du def gouvernement de campagne mm-hmm. ah, loolu loolu aussi c'est une tentation ku xam Macky Sall buy dem élection moom day jël lépp ses mm-hmm. moyen pour gagner Euh, loolu aussi soo tegee gouvernement de campagne fii ak six euh, dina am ay gàllankoor ci fonctionnement gouvernement bi. Hmm. Ah, leer na jërëjëf Mamadou Sy Albert doyen ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinal bi di la kenn kendalu jàmm ak màggalu jàmm. jërëjëf Fatou.